gars yi <laughs> na ngeen def nuyu naa leen tey ay xàjjar laa yor de di réfléchir la laa ci mën a defar mais est-ce que xam ngeen nii am na ay recettes yoo xamante ni mën nañ ko defar te du cher benn yoon lu ci mel ni sama xàjjar yi nga xam ni moom laa yore de yoo xamante ni mën nañ ci defar ay cake vanille ko yu neex yoo xamante ni li muy soxla ci dépense du bëri parce que tam des fois mën nga bañ a jekku dëkk bi dafa metti waaw léeg-léeg weer bi sori ñu ngi ci mois de février dem na ma ngay jëm booru le 18 nga war a mën a defar sa dessert bu neex wala sa ay douceur yu neex comme cake bi nga xamante ni mu laa bëgg ñu dem defar pas cher du tout nee naa la li koy defar soo amee mille jàpp 1500 di nga mën a lakk sa cake bu neex boo xamante ni mën nga si njoganalu mu changé sunu ay fataya sunu ay pain akara wala nga ndekkee ko pourquoi pas euh, mu changé aussi sunu ay habitude di lekk pain thon pain chocolat pain mayonnaise donc nañu dem léegi euh, dugg Alphie Cuisine ma wan leen ni euh, su ngeen yore ay xànjar sax di ngeen mën a mijoter ay recettes yu neex yoo xamante ni mën a dugg ci catégorie goûter wala ci catégorie ndékki wala sax booy waaja tëdd léeg-léeg nga nga jël sa daggitu keek de wala sa daggitu beñe boole ko ak meew daal di dóor bala ngay bala ngay tëddi bi ñuy woowee boolu dof donc ñu dem Euh, defar ay keek vanille choco yu neex yoo xamante ni li muy soxla bariwul nee naa ne li muy soxla bu matee ci 1500 bu rombee 1500 sax defe naa du ko du ko du ko yegg donc sama gars yi ñu dem nee naa la Alphie Cuisine lay doon recette bu nekk ak couleur am aywa sama gars yi ñu dem mijoté ko sunu keek vanille choco. waaye ci sama gaay yi bagage su keek yaa ngi ko nen. beurre fondu lu toll ci 100 grammes farine 250 grammes tuuti chocolat euh, poudre de cacao sucré wala amer 150 grammes sucre euh, benn sachet levure def naa loolu laa fi am waa ak vanille baa ngoog di feeñ euh, bër bi mi ngoog ma seeyal soo amul beurre mën nga jël dëwlin way ça le mën nañu def keek sans pour autant def ci def ci beurre mën nga utiliser dëwlin donc 150 grammes suukar parce que man bëgguma keek yi sax suukar trop su fekkee da nga bëgg suukar nag mën ko yokk dose bi donc ñu daal di jël nag euh, nen yi toj ci cinq façon bi may def mooy cake bu gën a facile maanaam préparation facile boo xamante ne dañuy njëkk mélanger nen bi ak suukar bi mélanger ko ba mu homogène mën na bañ a fuur su fekkee am nga batteur électrique mën nga ko jël su fekkee mën nga am nga batteur euh, manuel kon bi ma am baax na mais yëngalal bu baax comme ni ma koy defee nii su ko defee nga sànni ci sa tuuti essence vanille mu ne cas donc kek vanille choco la ñu wax choco vanille wala vanille choco mi ngoog boo ci wax baax mi ngoog bu ko defee ñu yëngal jël beurre beurre bi ñu seyal beurre bi laa la wax mën nga jël dëwlin su fekkee amoo beurre ça le fait na nekk dëwlin bu neutre 100 grammes lañu jël seyal ko man dama def mélange beurre ak dëwlin waaw mi su ko defee nag ñu batiwaat ba mu saf mi ngoog nga jël farine bi mélangé ko ak levure bi sottil farine bi après nag nga tamiser ko buñ ko tamiser dafay daf ñu permettre mélange bi gën a facile tout ce qui impureté yi nekk ci farine yi génn ak lépp luy grumeaux donj yi nga xamante ni des fois du tas des fois tam levure bi boo ko tamewul mën ngay lekk di daj ci ay donju levure et c'est très désagréable moo tax ñu tamiser ko nii vite fait mi Euh, soo paree nag mélange jeex na pour ñi nga xam ne bëgguñu defar cake vanille choco mën nga mélange bi fii lay yem mën nga jël sa cake vanni wala sa cake à l'orange wala nga def sa fleur d'oranger daal di lakk mais su fekkee nag da nga bëgg defar vanille choco moo tax ñu jël poudre de cacao amer am na ci marché bi fu ngeen ko laajtee am na fa wala ñu jël rek pour de cacao bi ñuy defal xale yi bu ñuy ndékki mais loolu itam day gën a yokk dose sukkar bi su fekkee ça dérange pas mën nga ko ci def amoon naa fi nag tuuti chocolat xam nga waane man daf may faral di dal ma daal di jël sànni ko ci rek pour mu gën a saf chocolat moom laa seeyal noonu 100 grammes chocolat yi nga xam ni dama ko fekk ci placard bi rek def ko ci njàmbaas yàqul sër di ay ah, yow tam njàmbaas yàqul sër di ñu mélangé ci milieu bi ci digg bi muy yéeg ci digg bi ci digg bi ci digg bi ci digg bi raakle jël farine bi nga xamante ni moo collé wu ci paroi bi yëpp daal di mélangé nag sunu mélange liis na nga réservé de côté comme li ma wax léegi chocolat bi nga xam ne yoonam nekkul ci recette bi mais man maa ko ci def xam nga dañuy soo a jóge ci Saint-Valentin ay chocolat ay fraises yi duufal sa bët sax euh, yàqu si dara waaw ñu mélanger chocolat bi daal ciy def nag tuuti pat mélanger pat bi nga xamante ni moom mooy patu chocolat bi ba mu homogène. choco vanille ba léegi keek choco vanille bi bu leen fàtte ci la ñu nekk nii choco vanille wala vanille choco waaw mi ngoog après nag ñu jël sunu sunu keek daal di koy mélanger. Euh, li ciy des mooy ñu préparer moule yi su fekkee da nga bëgg def euh, cake entier nga jël benn moule su fekkee da nga bëgg defar ay euh, cake yu ndaw mën nga jël yeneen moule yu ndaw daal di ko ciy def pour ñi nga xamante ne amuñu four nag dinañu ñëw ci beñe yi wala ñu ñëw ci façon yi ñuy lakkee cake su fekkee amoo fuur parce que lépp lépp mën na nekk mais tam am four tam dafa noppale de te wóor ah tam genre bagage yu mel nii rek 5 heures ma tàkkusaan rek nga enfourné sa cake vingt cinq minutes jàpp 30 minutes mu ñor nga toog njoganalu léeg-léeg ça change ci pain akara wala beignet wala pain fataaya nga njoganalu def sa benn tee rek wala nga def sa tuuti ataaya rek dagg sa tranche keek marbre daal di daal di euh, xéwulu a ah, dara dàq ko mi ngoog léegi ñaari pat yi pare nañu dama leen di ñëw superposer pour mën a am marbre bu rafet mais su fekkente ni liggéey boobu yëpp dafay jël temps jëlal jaxase rek ñaari mélange et puis lakk donc moule bi ñu am tey mi ngi nii dañ ciy def tuuti beurre ci fond bi daal ciy def tuuti farine pour mu bañ a collé nga xam ne démoulage facile la ñuy am mais excédent farine bi maanaam li ëpp ci farine bi dañ koy dañ koy tuur kenn du ko bàyyi ci moule bi donc da ngay euh, wërale ba muul bi yëpp set gis nga après dañuy génnee excédent bi ba moule bi set wecc après na nga jël benn kuddu vanille bi ñu tudd Ricardo ak benn kuddu chocolat bi ñu tudd Alfi daal di defar sa métis waaw waaw vanille choco mi ayotam jonge day bokk ci togg mooy togg yëpp da ngay jonge ndax Ricardo day déglu vidéo yi waaw léeg mu dégg turam ne ma qu'est-ce que tu as dit bébé ko yooyu yëpp ci xeetu jonge la mi ngook nga daal di jël nag sa benn chocolat ngook muy mu ñëw rejoindre Ricardo noonu def ci ba mu doy ainsi de daal di jël nag sunu euh, pat tarkal la yóbbu ca fuur ba taalal fuur bi nag parce que kenn du ko jël rek def ko ci four bi noonu dafay tàcc soo bëggee mu bombe taalal fuur bi deux 200 degré mu tàng jëpp nga jël sa sa sa sa moule enfourné ko bàyyi ko fa 5 minutes ci 200 degré yi après nga wàññi def 180 degré soo defee 180 degré nag bàyyi ko ci 25 jàpp 30 minutes jëlal sa paaka au de 30 minutes nga jam su génnee set wecc nga xam ne sa keek ñor na su fekkee dafa da nga jam paaka mu génn am tache nga xam ni keek bi ñorul bu baax nga dugalaat rek daal di xaar tuuti donc mi ngoog waaw wow nee naa la vanille choco choco vanille ñu rejointeen rejointeen noonu après ñu ñu secouer tuuti waaw tàcc tàccal noonu tuuti daal di enfourner nag mi cinq jàpp trente minutes laa wax bu génnee nga am lu rafet am lu croustillant à l'extérieur am lu moelleux à l'intérieur mu nekk cake boo xamante ni vite fait très facile à réaliser et pas cher du tout parce que gis ne liñ ci def euh, est-ce que mat na 1000 francs bu matee 1000 francs rombul 1500 de bu fekk fekkee ëpp na 1000 francs rombul 1500 de nga njogandolu xale yi am seen goûter mag yi tamit am seen goûter parce que mag yi tam dañu bëgg lu lu neex di lu pour xale yi kase nga mën a am sa keek njoganalu wala nga xëy ndekkee ko ça change un peu ci sunu mburu yi ñuy am boo reeree ba pare tamit eco comme sama yaay ni muy def moom bu reeree ba la muy tëdd day lekkaat nga dagg sa benn tranche cake naan sa benn kaasu meew am lu bëri waaw am lu bëri donc mi nga ko sama gars yi yàkkal naa ko waa team Alphie sama gars yi nga créé seen groupe whatsapp di ca wax lu lu lu rëy rëy waaye ba kay ba léegi kenn adhéré gu ma donc waa team Alphie merci pour les commentaires merci beaucoup pour euh, recette bi nga xamante ni moom la Alphie Cuisine andi woon léegi nii nii nii ci tàkkusaan bi partagé ko ak yéen mu nekk cake vanille choco merci beaucoup jaajëfal naa leen et à la prochaine pour une très très facile